depuis le 15 mars euh, bale passé ci lañ ubbi woon dépôt yi pour euh, euh, l'obtention des cartes nationales de presse bi ñu ko def bi ko defee nag le 28 bi passé le 28 avril ci la ñu def suñu première session ordinaire pour éplucher dossiers yi nga xamante ne moom lañ jot Euh, bi ñu xawee xayma am nañ euh, une centaine de dossiers cent sept dossiers yu nga xamante ne muy téeméeri dossier ak juróom-ñaar yu nga xamante ne jot nañ ko euh, fukki yeeg ñett ñi nga xamante ne dañ déposé en ligne foofu lañ ko déposé lu ci des nag foofu lañ ko déposé ci suñu secrétariat bi ñu ko saytoo nag juróom fukki ak ñaar nekk na yu nga xamante ne validé nañ leen. et que ñooñu incha allahu rabbi d'ici fin du mois de de mai bi dañ leen jox seen carte nationale de presse. ña des nag ñoom dañ leen yóbbu ci commission de validation des acquis de l'expérience mooy ñi nga xamante ne amuñu diplôme mais il faut ñu saytu seen liggéey pour xool ndax apte nañ à la pratique journalistique. boobaa nag ñu doog leen jox li nga xamante moom la carte mooy carte nationale de presse bi. nga xam ñu ngi ko voté en waaw carte bi a am dañ correspondant de presse il faut que nga génn ci école de formation en journalisme reconnue par l'État su fekkee ne amuloo loolu nga am licence ak ñaari atu expérience su fekkee ne matalawoo ñaar yooyu yëpp nga am 10 ans expérience ci collecte traitement ak vérification ak traitement information léegi nag ñi nga xamante ne génnuñ de école de formation mooy ñi nga xam dañu am licence ak deux ans d' expérience ak ñi nga xamante dañu am dix ans d' expérience ñooñu bu ñu ñëwee ci commission bi commission bi dafay soppaliku nekk commission de validation des acquis de l' donc mooy ñooñu nga xamante il ñu saytuwaat leen te ci saytu boobu nag euh, loi bi def nañ mën nañ am lu ñuy woo ay personnes ressources te noonu lañ fas yéenee def moo di dañuy dem ci ñu nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc évaluation muy ay professeurs ñu nga xamante ne dañuy jàngale ci école yi ñu nekk euh, CESTI yi wala mu nekk ci yeneen école de formation ñoo ñoo ñuy saytul euh, ñu nga xamante ne déposé nañ seen candidat boo wax ñu ni apte nañ à la pratique journalistique boobaa ñu jox leen carte nationale de presse